biiral xasida saagaral ndakk fi nga tëje rek fi la ñuy jël jëlal ci suuf rek asaloo kaw la tëye xasida muy juróomi bayit rek la jël ñu fiiri ko mu jeex di ñaan yàlla ci barke xarim Moustapha lu ñu bëgg yàlla def ko xam nga ni xasida gii di wa kaana xaqan alayna nasrul muminin suñ borom moo waxal boppam lu ko kenn waxulut ñi gëm yàlla gëm yonent bi gëm sarwisam man jël naa sama engagement ni ma leen di dimbali yàlla ko wax jullit yi buñ jàq bu tiit seen dimbalu teeg ëllëg mi sama loxo ni mu ko waxee defe na ko di ndimbal lu ëpp rasulullaay ci suñ biir amut ah rasulullaay ci suñ biir doy na sëkk jullit yi képp ko am xoolal rasulullaay ni mu toll nu naa ñooñoo mu ne ñoo xeet rasul ni ko cëpp ci sunu biir wa kaana xaqat alayna nasrul mu'minin ndekete kon bu ñuy xool ndimbalul yàlla ci yeneen yi yooyu taxut yàlla yox ñi jiitu wala ñi mujj ñu ngi doon lekk ñu ngi doon naan ñu ngi doon sol waaye amuñu rasulullahi amuñu xaadim rasul ah <laughs> wa kaana xaqan alayna suñ borom nee dinaa leen beral loxo yéen jullit yi lu ngeen leen di beral loxo muy rasulullahi ma leen jox lu ngeen lu nga leen di beral loxo muy xaadim rasul bi ma leen jox ci biir jullit yi nag mu tànnal ci sëñ Tuubaa beneen berma muy moo tax borom Tuubaa ni bi muy jàng xasida gi ba ca jeexlu ba mu ne ngeen diglu ma wax leen xasida gi dara taxut ma def ko dul sant yàlla te xam nga ni xasida gu sëñ Saliou fonkoon a ngi nii ndax daan neexal ñi koy jàng bi ko gaa yi foofu ku ko mokkal ku ne mu jox la juróom gi dama fukki junni formé ci daayira ba xam tudde ko wut kuréel ba xam tudde ko daa leen xamal ne fu ñu koy jànge fu ne du bekkoor xasida gii ku koy jàng doo bekkoor fu ñu koy jànge du bekkoor kooy diglu du bekkoo wa kaana haqqan alaynaa nasrul mu'miniin moo tax bi ci Sëñ Tuubaa defee lim ci def lépp ba ba ca ba ca mujj ga boo laalee ca kaw rek li tax mu def ko nga doog a ñëw ne foofu ma wax jiitu bi seen xasidati saakiran lakka bii wa xabdu li xutta fat lakka jiitu ma mën bi seen xasidati saakiran lakka jiitu bi seen xasidati saakiran lakka لك جهت بش الخسيدة ساكرا لك به وقبل لخطفت لك جهت جهت بسا خسيد ساكرا لك بي وقبل لخطفت لك جهت بسين خسيدتي ساكرا لك به وحبل ليخط فضلك جئت بذاك في ساترا لك به به وحبل ليخط فضلك جئت borom nee na ñëw naa ci seen biir damaa ñëw loo àndaale seen Tuubaa bisaal xasidi andi leen xasida gii di wakkaana xaqan ngir sante la ko yow yàlla sama borom ci li nga may ak li ma defal bii wa qabli yaxutta fadlaka moo ne de laata ngaa jëflante ak man ci xasida gi ya ko jiitu woon yëpp defal nga ma lu meloon nii ngir sa ngëneel ma rafetal lool woyinam rafetal lool am mbindam moom xasida gi sukkoora moom xasida gii nga xam ne lépp ay sant yàlla la walam tasal musta dañ mukk moom xadim Mustafa yaa maliki sakuura di la sant yow yàlla sama bi moom moom sant koo xam ne amul dayoo akarabani seere leen sëñ nee na yàlla teral na ma ikraam teraa ngay koo xam ni lu ko neex mu def te kenn du ko lu tax nga def ko wa kullu ma aratu min kan faal teraanga man tee su yàlla ni Xaadim Rasul waxal loo bëgg ma defal la ko Sëñ ko lii laa bëgg mu defal ko loola maa ngi leen di yëgal yéen sama njaboot ni yàlla jox na ma min ladunka li ñuy wax xam-xamum ilmu la duniya yàlla defal na ma ko ba mu doy. mu nekk ci man ak waar. nekk ci man xam-xamu xikam may àttee. maa ngi sant yàlla sama borom mi nga xam ne moo may loolu. yàlla barkeel la man sama lépp. yow yàlla sama borom mu ngay aj loxo yi ca kaw tey ñaan. waxaat ko ni nga ko waxoon yaa rabbi baarak tali fi urufi yaa rabbi baarak tali waxal ma yaa rabbi yaa rabbi dokkee tali baarak tali daal di andi nag urufi urufi foofu ma jaaroon nag jaaral fi sëñ mu duñu dem yaa rabbi yaa rabbi nga may jox doog maa jox barkali fi huruf yi yaa rabbi yàlla maa ngi lay ñaan yow yàlla sama borom barkali nga barkeelal ma ci Touba barkeelal ma ci murid yi barkeel ma àdduna alaaxira fi huruf yi foo fi mën a nekk ci barab yi sama huruf yi ma la tàgg na gën ci mboolem araf yi beneen huruf bu bokkut ak sama huruf yi wa bil ma'ruf ma ca may ma ax jàng ca beneen xam-xam boo xamante ne ku dul mën mënu koo am maa ngi ñaan yàlla sama borom ma bind mu defal ma xasida gii di wakaana xaqam mu nekk xasida goo xam ne day xotti xar li aadati ci sama aada mu fi fu koy jànge fu nekk ña koy jàng di tedd ña koy diglu di tedd ña koy dégg di tedd asalo maa ngi ñaan yàlla sama borom may ma kaw na moom nekku gile xasida Mamadou Niang xaari xatan xaari xatan mu xotti xaraada li aadati mufiida ci aada muy lu luy bëppal ba faw fees dell yaa ayu yàlla maa ngi lay ñaan yow mii nga xam ne yaay dundal yaa xayu te lépp lu taxaw yaa ko taxawal sayyidi salaam sottil sa jàmm ji te sotti sa xéwal yi جاء sëñ Tuubaa nee maa ngi ñaan yàlla xaside gii di wakkaan ahmad mu sottil ma xiiwal yoo xam ni man ak njaboot jeeg Tuubaa ak ku yaakaar day sotti ba mu fees dell lu may bëgg am ko àdduna ak alaaxira sëñ Tuubaa nee na maa ngi ñaan yàlla ci barke ñaari ismail ahsan ñett yoon rek la ñëw ci alxuraan ci ayatul kursi yu defe naa ali imran ak lu saha waxanatil wujuh lil hayyil xayyum rasulullaay nee na bu ñuy seet ismulaay axsam mooy ñaari tur yi ñett yoon la ko alxuraan tudd sëñ Tuubaa ko ci biir xasida soo ko jàngee benn yoon tur wi nga xam ne ku ko wax doo dem sawara sëñ Tuubaa def ko fii yaa hayyu yaa xayyum maa ngi ñaan yàlla ci barke ñaari tur yi looy ñaan sa xiiwal yu bari yi sa jàmm ju bari yi sottil ma ko ci nga xam moo ñu andil wax ji gën a rafet ci wax ji mooy alxuraanul karim nii yàlla maa ngi lay ñaan yow mi nga xam ne yaay dundal yaa xayu lu ngeen gis mu taxaw ci kaw suuf yàllaa ko def mu sotti xéwaleem yi te sotti jàmmam ji ci yonent bi nga xamante ni ñëw na ci noonu bi andil nu wax ji gën a mat ci wax ji gën cee rafet andil nan wax ji gën a rafet ci wax ji te mooy alxuraanul karim kitaabalaahi yàlla nga dolli xéewal te dolli jàmm wal taqbal te nangul ma sama xasida gii may wax maa ngi lay ñaan nga defal ma ala xaari ku mu mën a doon nga xam ne am nga wakkaana xaqan toog di ko jàng sëñ Tuubaa nee na maa nga ñaan yàlla mu defal la loo bëgg loo xam ni cay xéwal kawe na sa njort ba la nga doon ñaan yàlla def la lu ko ci les xam ak les xamul nag maa ngi la koy ñaanal ñeel na ki way urof yii bépp mu sax ci xolam te du du fi jóg yaa man kafaa yow yàlla yow mi nga xam ne fegal nga ma boroom mi war taxale ko ko man yow mi nga xam ne yaay méngoo suñu mbir yi yaay dimbali képp ku nekk àdduna tey dimbali ku nekk alaxira walli yu yow aji méngoo ji yaa rahmaanu yow aji dimbali ji alaxira nag bu fa eggee ku dem àjjana yaa ko dimbali mu del si ca wax ja ni yàlla yow mi nga xam yaay dundal wax yow taxaw yaa ko taxawal yaa xayu yow aji dundalee ji wa yaa xayu yow aji taxawal ji lu ne yaa mukrim yaa yow mi nga xam ne yaay borom teraanga yi naa yàlla na nga may jàmm te musal abdukan sa jaam bii di xaadim rasul xaadim moo tax bi ahmadu te demoon ci géej gi sa salaam muy borom mi ko defalee yonente bi musalliman te may ko jàmbi adduna bi alaxira ala ma ay noon génneel ma ay bañ bu kenn nekk ci man maye ma ñu ka abduka xaadim sa salaam musalliman ala ahsanul kalaam jox ma ko rasulullaay rasulullaay jox ma ko maa ngi lay ñaan ci ahsanul kalaam moom di alxuraan yaa xayu yaa xayuum mun na nanga nga defal xéewal ala xaarihi seen xuróof yi waa ji jàng si léegi lu mu bëggati lu mu amut lu mu bëgg na ko am bi maa yëfoo ko sànn min maxroof yi te boo ko dee may moom mi jàng xasida gi na nga ko may lu kawe li muy ñaan waaw loolu loo bëgg yow ba ne yàlla maa ngi la koy ñaan na la suñu borom may lu ko ëpp moo xam ak wér la moo xam ay kër la moo xam xaalis la moo xam soxna la moo xam borom kër lu waay bëgg nekkate na ko fii mun na ala xaarisi si la xoroo fi li ba noppi nag mu ne ko nag li naa simi ha li naa simi waroo fi ki woy woy wi na nga ko defal mbëgg mu sax ci xolam xam nga luy mbëggum sëñ Tuubaa hmm. li mu ñaan yàlla ci xasida ku ko jàng am ko nee loolu koy kontaan ko sëñ Tuubaa xoolub taalibe mu mel népp di ko neex taalibe mu gën ku dul moom lu mu bëgg moom ko am ak nee na loolu mooy sedd sama xol kon saxalal ci sama xol bi man mi woy woy wi yaa man kafahu sal xurul yow mi nga xam ne fegal nga ma ay woy mooy sama taalibe na mel ni ma bëgg lu ci kon mu teg ci ni wali yu yaa rahmaanu yaa sa xéewal yi kiy jàng xasida gi bima yabuuxu sann min maarufi lu kawe njortam ci li ma xam doon ko ñaan linaasi bi urufi xalii raba ki woyoon araf yi nag saxalal ci mbégam ci ci xolam mbég yaa man abaaw saa xuruurin wa naba man nga ko ndax ñu warkat yi nekkoon ci géej gi yaa dox sama diggante ñoom kon man nga maa teralal kii ma bëgg wali yu maa ngi lay ñaan yaa raxmaan yow aji dimbali ji tey yërëm ku ko sopp yóbbu ko àjjana yaa xayu yow mi nga xam ne yaay dundal wa yaa xayu lu taxaw ne yaa ko taxawal yaa muqiya yow mi nga xam teraanga yépp sa loxo la nekk musalal musalal abdukal sa jaam bii xadimu di la liggéeyal sa salaam tey julli ci yonent bi musalliman may ko mu jàmm am jàmm نجاك عبدك الخديم صلى مسلما على مصاحسين خلا نجاك عبدك الخديم صلى على مصاحسين خلا آمين أمني نجاك موسى سلام سليما على موسى سيدنا